gis ni kër gi gis ngeen kër gi voilà gis ngeen voilà gis ngeen euh, man moom sonn na lool gis ngeen la étudiants yi replié nañ gis ngeen ay doy na waar gis ngeen lakk-lakk gaa ngi nii gis ngeen lépp la ñuy wane. dugg leen ci site bi dugg leen ci bi ngeen abonné dugg leen ci site bi ngeen abonné c'est la Médina TV HD gis ngeen tàq-tàq yaa ngi nii tàq-tàq yaa ngi nii ah, tey nag dawaat naa lii daw yi moom gëj naa ko daw gëj naa ko daw depuis. 2000 ba may joué nawetaan ay seet dammel sa laa dem joué di la di leen nuyu de passage di nuyu waa zone 1 yëpp ah gars yi ñëwaat nañ gars yi ñëw nañ dàq nañ booy ya ah jëlaat nañ champ ba jëlaat nañ champ bi xaaral ma topp ci oh, xaaral ma topp ci jëlaat nañ champ bi jëlaat nañ seen terrain bi voilà dàqaat nañ booy yi léegi policiers yi ñu ngi nii ci rond point université Cheikh Anta Diop duggaat nañ. dugaat nañ dugaat nañ fii eh, na torop gis ngeen gis ngeen booy yi reculé nañ ndeysaan ndeysaan xool ko ak ay jàmbaar ak ay jàmbaar ab jàmbaar la jàmbaar la démb moo nekkoon fële ca place eh, la gis ngeen booy yee ngi ñëwaat de daam boo yee ngi ñëwaat de boo ngi ñëwaat de boo ngi ñëwaat gaa yi ngi daw xoolal policier yi ni ñuy dawee xoolal ni ñuy dawee boo yi ñëwaat nañ jëlaat nañ teere bi xoolal gaa yi ni ñuy dawee xoolal leen boo yi ñëwaat nañ yoon bi dàq nañ ñu nag ñun ñëpp ñun <laughs> waay <laughs> <laughs> ay lii mënu ma koo bañ a ree lii lii mënu ma koo bañ a ree wuy sama nday oh, ñëpp a ngi daw policier yi ngi daw nervis yi ngi daw journaliste yi ngi daw wala policier yi ni ngi dawe xoolal ni ñuy dawe xoolal ni ñuy dawe xoolal xoolal lii ma wane ginnaaw la lii lii lii lii moom lii moom maa gis xoolal boo yee ngi nii di ñëw boo yee ngi nii di ñëw xeer yee ngi la laa ilaha illallah xool leen xool leen dañuy daw ba pare naan ñëw leen xool leen ñëw leen waayi ñëw leen waay ñëw leen waayi ñëw leen waayi ñëw leen waayi ñëw leen waayi Oh.